c'est la référence. Euh, kaddu gi euh, di àddoo fii ci studio Alioune euh, Momar Lo taxum kaw ma ñu dupe Cheikh Imam Assane Cissé mbokk yi salaamaaleykum dal leen ak jàmm ci xibaar yi bu ngeen taaxirloo rek ma jukki leen li ci gën a fës li gën ci xibaar yi bokk na ci nag ziar bu mag bi ci Medina Baye édition 2023 bi màggal nañu ko nag niki démb gannaaw julli ajuma ak xadara juma jeexalee nañu ko nag ak jotaayu waxtaan ci bayal bi. bi lu ni mel nag mi ngi amoon ci teewaayu xalif bi porte parole beeg euh, ki nga xamee ne moo di magub taalibe yi moom nag Serigne Mahi Baye Mbaye Niass jàjjiwaat na fa taalibe a euh, soññu leen a euh, ñaax leen ci yoon bi nga xamee ne moom lañu ñu war a aw bu ñu bëggee jëriñu lu ni mel dañ ca dikk ca na mu gën a yaatoo ci ndimbalal Cheikh Babacar Dieng wàllu dem gi ak dikk gi tàmbale tàgga témbe nag fii ci diwaanu Kaolack bi gannaaw dogal bi nga xamee ne nguur gi jël na ko ci wàllum tukki ak sukkandikoo ah, ci lenn ci sëfër si client yeeg ñi nga xamee ne ñu nga yëngatu ci wàllu dem ak dikk ñoom nak nag daal dinañuy ŋàññ rek boobule dogal nee ñu nag lu ni mel day yàq seenuku liggéey ba tax na ñu ngay sàkku ci nguur gi ah, mu xoolaat ko loolee itam dañ ca dégg Cheikh Tidiane ah, Diagne jaare ko ci ab convention municipalité bu Kaolack bi nag daal dinay xaatim ak ak déggoo ci wàllum jumelage ak dëkk bi di am Amsa nekkee ca réew ma Turquie solos lëngoo boobee nag ak liy bi moom Serigne Mboup àdduna ci daañu ko teew teewlu itam ci uh, catal uh, xibaar yi uh, bu li lépp yembee mbokk yi dañ ca teg xabaar yi biti réew tàggat yaram ak li ci yéeni kaay yi mu yemboog li gën a fës ci ponk xibaar yi nees gis ñu indi ci faram-fàcce. Le journal Ngoné Ndiaye Reine. ci kàddu gi eh, fego ci ak El Hadji Ibrahima Gueye ci eh, xarale gi eh, xibaar yi nag dañu koy doore ak nañu leen ko junjee nañu baaxoo di ko defee itam la ñu ko amalaatee ab jotaayu waxtaan nag moo daal di jeexal ni ki démb ziar bu mag bi ci Medina Baye mu nekkoon itam ab jotaayu sàkku ñaan jàjjiwaat taalibe yi fàttali solo si ziar boobee itam nag kii di borom woote ba di imaamul akbar imaam Cheikh Tidiane Cheikh Seydi Alioune Cissé ñaanal nañu ko fa bu baax a baax. Cheikh Ababacar Dieng. nekk nañu démb ci bayaal bi ba guddi gi xaaj. siyaare bu mag bu Medina bàyyi gu atum deux mille vingt trois jeex na. su amee kenn koo xam ne nekkul woon ci biir mbooloo mi. te turam gënuñ fee fës. moo di imaamul akbar imaam Cheikh Tidiane Ibn Seydou Ali Cissé. bi ñu lal jotaay bi. dok lañ ko jagleel. di ñaan nag kenn ku ne ci ñun. suñ mbokk suñu jarbaat. suñu liggéeykat. suñu mbokkum liggéeykat. mooy imaam Cheikh Tidiane Cissé. te liggéey na bii tey ñu fuutu ko ci jotaay bi. ma bëgg ñun ñëpp. ku nekk jàng fatiha ñaanal ko yàlla gàllankoor bi ko téye yàlla teggi ko bu su déwénee ñun ñëpp ñu bokk toog mu toog ak ñun yàlla yàlla def loolu ci barke Mawlana Cheikh Ibrahim ni ko sëriñ Mahi mu maam sëriñ Mbaye defee la ko sëriñ Mahi mu Cheikh al Islam mit feeloo yàlla ñu yàlla yëkkatil imaam Cheikh Cissé yàlla ñu yàlla yëkkatil Cheikh euh, Baba Lamine si aada nag mag ñi ñoo ko woote woon ngir bu nawet bi wàccee ba ñu jaay seeni ngóobeef ñuy jël lenn ca seeni xaalis ngir siyaare ci Baay Ñas ko àllarba daan wax ci kàddu taalibe yi gannaawam alaaji baraham kër ma jibel mu ñu tàggu bu yàggut wuutu woon ko si sijaada bi démb nag sëriñ yi mu maam sëriñ mbay moo toog seen toogaay ñoom ñaar ñi waaye moom nag sàmba ni ki maasam rek moo xam muqaddam yi wala mu axar yi aju ci pay bi ñëpp la jàjj amul benn muqaddam bu ne ci capital bi tey lu mooy ba nga demee danga doon lu yaas di fay ci barke baay dem ba neex nit ñi ci barke baay loo wax mu neex nañ ci barke baay nga dem ba jënd kër ci barke baay Baye te boo leen waxoon ne yëkkatil oto bi ci barke Baye ñu yëkkati ko kon booy booy ñëw ci Baye nag booy ñëwee ba gànjaay sippil sa daraja wacci fa lépp dox tànk la topp futteeku nga dox ak tànk ba egsi ne lu ma xam fii laa ko jëlee moo njëkk jël kàddu ndax taalibe yee doon siyaare seen sëriñ te moom moo ne ci boppu taalibe yi wax na naka la ñuy def ba jaruñu ci faydu bi waaye dund ci Baye tedd ci Baye lépp nga xam ko ci Baye soo xamee xew bu ci doomu Baye ñëwut sa xew li soof fokk nga fexe ku ñëw yéen te doo ci xul xamee xew da juwul sa bopp lu mën a doon da juwul sa bopp ka lay taaral jox la daraja ah. nga bëgg àddina be boo ko waxee ba mu ñëw nga liggéey ponkalam piliyaan diggante fi ngay toog ak suuf daanaka mën na meetar jël doomi bàyyi teg ko ci suuf ko ñëpp di la seen pare yëpp di la jam nga foog ne loolu dana wéy billaay du wéy du wéy tey du wéy ëllëg damaa placé nag pour wax ko su ma doon sëriñ aw ma droit wax ko parce que sama bopp laa ne ba noppi nag xamal xalifa bi na ko taalibe lu neen ak yàqante bi ak jëwante bi ak lorante bi dem ba gis gan na ci ak i bàkkaar suñu xol yi lëndëm ñu jaaxle xamatuñ fu ñu mu ñu fendi gisuñ nag fenn foo xam ne bu ñu fa demee ba boobu tegee ku ci ñun amul ci àddina bi fii rek lañ ko xamee fii rek siyaare bii nag amal nañ ko ci bayaal bi ci teewaayu mbooloo mu takkoo takku jóge ko fu nekk ñëwoon Medina Baye euh, Cheikh Babacar Dieng ci teewaayu mbooloo mu takku moomee nag fa la jibale itam ay kàddu yu ngërmande ak rafetlu taxawaayu taalibe yi ci pays bi euh, sàkkul na leen ñaan nag ci kanamu xalif bi lu ko jiitu itam mu sàkkul ko imaamul akbar ci taxawaayam ak cofeelam yooyu le kàddu nag ko yëkkati mooy porte parole pays bi Cheikh Mouhamadul Mahi Cheikh Seydi Alioune Cissé ay kàddoom ak Cheikh Babacar Dieng. imaam a ngi ñaan nga ñaanal taalibe yi waaye ñun ñu ngi lay ñaan nga ñaanal imaam ndax tim li taalibe yi lu ci ziyaara bi mu ngi tële amoon na ngant ne mën naa ñàkk dem ci jumaa ji ndax taalibe yi wan nañ leen yoon wi ba fi mu bu ñu leen ooyee rek ñu ñëw liggéey boobu li fi nit ñi amoon démb moo leen ko mayoon lu fi nit bëgg a am tey tim moo la koy may Cheikh Ibrahima radiallahu anhu wax na ne laa yunaalu maa indana illa bi sidqi wal mahabbati li nekk ci ñun kenn du ko am lu may ci bëgg ak ci ngëneel bu fekkoon la nekk ci bàyyi nit ñi dañoo àgg ci teggin fañ ciy àggee wala ñi àgg ci joxe fuñ ciy àggee wala ñi àgg ci bëgg fuñ ciy àggee boobaa ñëpp danañ naagu pour àgg ca la nekk ca loxoom taalibe yi ñëw nañ uy nañ oote bi bañ ñëwee tim ku ci nekk def nga li nga man def nga sax loo xam ne ni mënuloo ko ci yàlla da ngay def rek ndax yàlla moom mi la sant nga def moom moo lay defal looloo tax taalibe yi fu ñu nekkoon daaw waxtu wu nekk passé nañ ko ci dundale ak ci joxe ak bëgg pay bi ak teew teewaay bii nga xam ne moom moo gën a itteel sëriñ bi ndax moo doon itteey démb ji Seydi Ali mas naa wax fii ne sëriñ bi dajee bi taalibe yi dajee ci kanamam loolu rek doy na ko ndax moom bu doon ut yàlla rek lay ut waaye yàlla xas na ko doy ba songut mbiram ut loolu it nekk ba fekk moom la bëgg muy xam-xam te xam-xam mooy jub xam-xam mooy àggale ci yàlla xam-xam mooy leeral xam-xam it moom la fi bàyyi bàyyi moom la yonent yi donnloo ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na ñun mboolooy yonent yi duñ donnloo dinaar duñ donnloo dirham waaye xam-xam la ñuy donnloo ku ci jël rek jël nga ci cër bu law te dundam yépp lool la ñaanalal imaam yàlla may ko wér yàlla delloo ko ci sagoom ñaanal taalibe yi yi nga xam ne dëgg dëgg góor góorlu nañ ci bëgg yàlla wane nañ seen bëggeel ci pays Mawlana Cheikh Ibrahim radiyallahu lii lañ lañ oo tey ñu ci lii bu ñu leen ooxee ëllëg ci leneen tim dañ uysi ci leneen loolu waaye nañ xam ne ñu ngi ci pays boo xam ne dafay dox jëm ci kanam dëppook jamonoom waxtu wu nekk nag nañ pare ne pays baa ngi oote loo xam ne bu ko ootee duwut pour jëriñ sëriñ bi duwut pour dépasser kenn waaye pour njëriñ loo xam ne dafay dellu ci ummatu muhammadin sallallahu alayhi wa sallam njëriñ loo xam ne dafay dellu réew mi njëriñ loo xam ne dafay dellu ci l'humanité euh, jaare ko ca euh, jotaay boobee nag alxalifa xaadimul ummati moom nag gannaaw itam waxtaan na ak taalibe yi ci wàllu développement ak fi ñu ko war a jaare ngir mën a suqaliku rafetlu itam feeñu waayu ak guddik démb googee boole na ca nag ñaanal ñëpp ñaax jeunesse bi ay doom moom Cheikh Mouhamadul Mahi Cheikh Ibrahima Niass Cheikh Babacar Dieng moo ñu ko baaxee. ngi wax li fi bàyyeekoo ci yéen la jëm si ngeneel bu fi bàyyeekoo rek ci yéen la jëm si ngeneel bu fi bàyyeekoo ci yéen la jëm si seen réew mi réew mu réew mu neex la réew mu am jàmm la réew mu baax la réew mu tabe la réew mu mën a joxee lekk mën a maye xaalis loolu mooy Sénégal loolu amul fenn ñun ñoo ko am kon bu leen ko yàq bu leen yàq seen réew bu leen ko tas téye leen ko téye bu dëggu téye bi nag mooy liggéey rek ñi nga xam ne am nañ tool ñu dem bay ndax ñu am luñ dundee duñ ci xaarati kenn dañ koy defal suñu bopp te boo commencé liggéey rek loo xam ne lay dimbale sax ci bopp mooy ñëw dimbale wax waxi tooli baay bi ñaari dërëm waaye fi nekk nii am na ay réew yu jël engagement ngir ñëw dimbale si tool boobu Soudan def na ci xaalis ki démb yóbbante nañu yónnee nañu ay garab yu bëree bëri garab yu meññ yoo xam ne mat na hectare wala ko yu ñuy siiw ci yu ñuy def ci tool yi rek yoo xam ne lu bëree bëri la loolu ko yàlla dundalee defal ko kon doomu aadama dina xam ne mën na dara bu jéemee waaye bu jéemul nag te daf fi nekk di tawat rek gouvernement bi gouvernement bi nangam ak nangam rek gouvernement bi rek comme ñu yàlla yal na yàlla barkeel Sénégal yal na yàlla barkeel doomi Sénégal Sénégal yu góor yeeg doomi Sénégal yu jigéen yàlla may leen seen i càkkute may ñu xam-xam may ñu alal may ñu jàmm ba lu ñu am ñu mën koo jëriñoo mën a yokk waaye boo amul jàmm loo am rek da nga koy ñaan loolu defe naa taxut a jóg doomu aadama dafa bëgg a doon lekk bëgg a am bëgg a yëkkati loolu yëpp mën na koo defal bopp indi waaye moo yàq waaye waa ji bu ñëwee defar ko waa ji moo ko yàq ñoom ñaar lan lañ ba a yàq dara ba a defar dara kenn mënut yàlla ñu yàlla dimbali yàlla na yàlla dëgëral Sénégal ñu ko tëralee nii te guddi gi si guddi feeñ waaye teraanga yàlla yi la ci Sénégal ñu nii daja bëri la déggoo ay tëgg bi soo fi fecc bi soo fi def loo xam ne dëpp doon loolu yëpp teranga la nit ñaa ngi ko doon bañ daan ko xeex waaye mënuñ ci woon mënuñu woon waaye bi yàlla bëggee moo agsi nag agsi na kon yàlla mooy may yàlla ñu yàlla may yéen a ngi déglu xibaar yi 90 point 1. ñu di euh, wéyee euh, ci euh, xibaar yi daal di xusandi ca beneen poñ li itam bokk ca la ma leen junjoon gannaaw nag dogal bi nga xamee ne nguur gi xaatim na ko ci wàllum tukki guddi gi te nga xamee ne loolee sax nag ne tàmbali nañu koy appliqué dogal boobe nag lenn ci sëfar si ak ñi nga xamee ne ñu ngay jëfandikoo kaw tali bi fii ci diwaanu Kaolack bi ñoomi itamit nag daal di nañu cay addu wax ne loolee nag dafa nara tàggatémbel seenu ko liggéey boole ca di fësal ne àndu ñu ca moom amal ci ci lenn ci ay garage ci Kaolack ci ab élément à deux reportages. juróom-ñeenti waxtu ci suba gi moo toftal fanweeri simili ak juróom-ñett ñu ngi ci gare routière bu diwaanu Kaolack. clients yi di wàcc ci daamaar yi ñenn ñaa ngi yëpp yàkkamti ngay nemmeeku ci seen xar kanam ndax waxtu 11 ci guddi jàpp 5h du matin gi nguur gi jël ab dogal ne kenn dootu ki daw. ci barab yi ñuy amalee dem beek dikk bi ci capitalu Saloum yëg nañu ko ndax chauffeur yi nekk ci garage yu Dakar tàmbali nañu koo jëfee bu ñu jaayee doole kay danañ ko def responsabilité yi ñuy jël xamuñu ko dañuy xëy xëy def lu leen neex loolu noonu rek la demee depuis démb yooyu koy def ñu ëpp ci ñu ñu tàllal suñu micro ci client yi nag dañu ko rafetlu ñenn ñi jàpp ne lu nu mel baaxul ndax day gàllankoor seen liggéey xale bu góor bilee ci wàll commerce lay yëngatu ca Kaffrine la bëgg dem nee na nguur gi nañu xoolaat dogal bi ñëwee nii sori na te fu ma jëm sori na boobu xam nga su ma ñëwoon fi ñu ne oto arrêté na nga xamoo fi kenn ama ta numéro Sénégal mu mën a ah, moom coono lay doon si wala bi ñu fekk ko ci garage Nioro bu Kaolack rafetluwul benn yoon këyit gi ñu xaatima mu ñeel jëfee dogal bi nu mel Cheikh laa tudd fii laa nekk ci garage onze heures non commencé guñ ko wax dëgg yàlla dogal boobu moom jotaguñ ci yegsee guñ ci moom bu ñu bëggee indi lay onze heures moom indil nañu coono boo xam ne dana métti parce mën nañoo wax ne onze heures fekk la fii nga am jafe-jafe. te nguur gi ne dootuñ ci masla ak kenn application bi tàmbali na moo tax ñi nga xamante ne ñoom ñoo di jaaykat yi yëg nañu ko ndaw si ci garage yu Dakar bu diwaanu Kaolack fa lay jaayee banaana. onze rek la ñuy wàcc léegi depuis démb kay dañuy teel a wàcc. onze heures waaw onze heures rek ñu wàcc. te duñ gis kenn man ko loolu moom yëg nañ ko moom. noonu it la ko coxeur mënti doon jamono ji tembe tembe am na ci ñoo xamante ne ñu ngi fanaan ci seeni daamaar as su ñu fekk ci garage Nioro bu Kaolack ay atam toll ci juróom fukk moo ñu ko wax ndax nee na da koo dund waaye bëggul la yàbbi ci waxukaay gi ndax nee na yaramam dafa sutante. non non man mënuma waxee rajo yooyu sax. Euh, jaajëf Cheikh Tidiane euh, euh, ci lu soxal nag sëfër sa nga xamee ne ña nga leen di joxoñ baaraamu tuuma dogal boobee nag ak gaawtu gi ci am waaye itam nag lañ ca war a joyanti kii di secrétaire administratif bu garage yu Nioro bu Kaolack bi moom nag àdduna ci doon xamle ne ñoom lañ tey ragal kon mooy ak ak par par parparloo wa ilaa itam yaama neex Ismaïla jaay nee na moom àndul ci dogal beeg nañu ko jëlee ay kàddoom ci Cheikh Tidiane Diagne. en tout cas su fekkee ne dañ koy doxal tam dañ oto yëpp nañ taxaw camion yi taxaw voiture particulière yi taxaw lépp luy automobile taxaw buñ ko defee ñun danañ taxaw mais buñ ko deful ñun dañuy liggéey parallèlement ci transport bi yaa dee war gaynde ñooñu est-ce que danañ taxaw ñooñu ils vont travailler ils ne se gareront pas donc ñun duñ nangu loolu duñ ko def. kon fii euh, ni ngeen doon liggéey changé wul. changé wul de jusque là daal ñun buñ gisee client dañ leen di yem ñu dem buñ gisul client nag gisuñ client. mais pour le moment man je sais que sax mes chefs supérieurs d'accord ci loolu parce que c'est des gens très rébarbatifs dans leur travail kenn du leen caq-caqee léegi yow euh, nguur gi dogal boobu mu jël da ngeen jàpp ne baaxul baaxul dama ne ñàkk yar gi du dawalkati oto yi rek ñàkk yar gi se général boo demee député yaa ngi à l'assemblée député yaa ngi saagante di dóorante ay kurpeñ conseil des ministre ministres yaa ngi fa di saagante di xeex hôpital dalal jàmm 72 morts moo fa am ndax doon nañ seetaat réew mi ci boppam lañ war a seet buñ buggee mu dox waaw takk der yi ñun ci yoon wi bu ñu mënee néewal doole ñu néewal ñu doole rek mais ñun de duñ ci d'accord moom duñ taxaw 11 heures de buñ lu luñ yóbbu kay garage bi mosta tëj moom 24 heures sur 24 moom garage bi boo ñëwee boo fekkee client yi bu oto ba motee day dem ñu ngi liggéey correctement ah njiitu réew mi message moo koy lancé mooy d'abord nañ seet réew mi rek ñu seet ñun ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp comment sax sax moom mais mu seet boppam moom d'abord seet son entourage ses ministères ses députés ñu seet réew mi yëpp ñu defar ko parce que ñàkk yar gi laagoo la fii. Euh, dañuy euh, jógee ko nag garage yu Nioro boobee nag daal di dikk fii ci Medina Baye ak Orière yi ñoom itamit nag wax nañu dogal boobee ak nañu koy dundee jamono ji lañ ca xamle kon mooy ne ña koy jëfee naam terewul ne am nañ ca njàqare seen ko gis-gis ci mesure beeg lañ cey digal nguur gi moom Ousmane Ndiaye di seen ak njiit moo ca doon àddoog Cheikh Tidiane Dieng. waaw commencé nañ ndax démb bi ñu daggee ñu war a dem dañoo taxaw ba cinq heures du départ dem ñi nga xam ne ni dañ fee départ minuit bi ñu demee dañ leen a téye jàlluñ ba cinq ñu bàyyi leen ñuy dem waaye ñun tamit li ñu wax démb appliqué nañ ko di xaar ñi nga xam ne nii ñoom lañ seqat liggéey bi ñoo xam ne ni suñuy nawle lañ ñoo bokk nekk ci liggéey bi daal ñooñu daal lépp luñ xam ne ni wax nañ ko ci la ñuy ànd mooy situation yoon bi day gën a rek tey jii bi jógee téye oto bi jëm ñu ñëw ba ci appuyage bi ñu taxawandoo xam nga pile bi dana gudd nga ne leen pirip jóg leen dem leen nga yeewindoo ñëpp ñëpp topp naa ko ñee ngi dàqee ñee ngi daw pour njëkkalante pour dugg Dakar pour balaa embouteillage sa xat oto yëpp ñëwandoo benn yoon dañuy xat te boobaa loolu la gën a daas ci dem guddi bi mais yéen fii ñëpp min leen xam ne ci ngeen di départ ñëpp léegi clients yi est-ce que yëg neen ko loolu amoo leen ci benn jafe-jafe ñun képp kuy dagg ticket boo ñëwee dañ naan la heure bi changé na heure bi la ñuy dem doon nañ dem minuit mais léegi 17 heures la ñuy départ 23 heures dañuy yegg fañ jëm toog noppalu ba bët set ñu teguwaat ci yoon ñëwaat. guddi gi guddi gi 5 heures du matin ci fajar mu am bu départ demaat Dakar. Ah. waaw dana am changement parce que nit ñi balañ koo xam. il fallait que ñu am du leen leer. boo ñëwee tey nii départ c'est 17 man mën ngaa fees man ngaa ñàkk a fees mën ngaa ñàkk am lu bëri. waaye suñ demee quelque temps wala quelques jours mën nañoo reprendre ñëw pour di def comme nañ doon jëlee bee ñu koy jëlee bi. 17 heures dañuy fanaan ci oto bi. waaw loolu de yàlla xam bu dee paan bu garaaw la moom doo dem client yi dañuy fanaan looloo tax daal li man li ma xam nga xam ne mooy ma conseil ci ñi nga xam ne nii dañoo jël dogal bi mënoon nañoo jël mesure ci ni ñuy liggéeyee civilisation bi comme ñi nga nuñ dalee daal li am moom am na kenn mënu koo fanq lu yàlla dogal la accident chauffeur bi ciy dee buggut a dee client bi ciy dee buggut a dee ñi dee ñëpp ci accident bi foofu la yàlla malaaka ma jëlee woon seen suuf boo jëloon mesure téeméeri mesure accident du am nag nga sa bopp. Ousmane euh, Ndiaye dañuy descendi euh, ba tey itam ca wowule mbir euh, ca geneen wet ga nag chauffeur gros porteur yi nga xam ne ñi ngi fii ci diwaan bi ñoom itamit nag yéey nañu yàbbi ci mesure yi nga xam ne nguur gi jël na ko ci wàllu dem gi ak dikk gi nee nañu nag balaa nga naan naam a nef nañu deltu ginnaaw xoolaat dogal yooyee ndaxte nag jëmul kër moom vi Guèye njiital regroupement chauffeur gros porteur bu bees jaare na ca itam rek daal di waxaale jafe ya nga xamee ne ma nga leen di gàllankoor ay kàddoom ci micro Cheikh Tidiane Diagne. li nga xam ne moom la jooy te amuñ ko ko fajal mooy ñun lu ñu rey yokk rey ci dëkk bii ci suñu oto yi mënuñ ci am dara commerçant yi ci lañ bokk parce que mënoo jël commerçant oto bu jógee Dakar chargé ciment ñu war koo fay borom ciment yi jaay fii ciment yëpp billaay wallaay riba la ñuy dundee cinq mille lay fay la tonne cinq mille lay fay te boo ko bañee sa morom chargé ko ku amul benn commerçant bu ciy fay def ci frais boo oto bi ak see fii doo dese cinquante mille vingt mille franc doo ko dese nga fay ci assurance boo tojee pono patron kon li gouvernement bi njëkk def li balaa muy jël yi que ak ñi ne ci dëkk bi nañuy fay tarif normal bu ñu fayoon borom oto yi li ñu chargé ciment ak li ñuy chargé Kaolack am na ñoo xam ne quatre mille cinq cent la ñuy fay Kaolack Dakar waaw te ñu war a huit mille franc nga yëpp boo demee nag au nga chargé dix tonnes tonne lay chargé du la jël léegi ñëpp jënd oto jox ko chauffeur kenn li toppatoowul liggéey moo tax lii du mun a ñàkk léegi euh, ñaata ngeen bëgg ñu fay leen tonne am na prix boo xam ne gouvernement bi lii la fixé Dakar Kaolack huit mille cinq cent ñu lay fay quatre mille ñu ngi fii di dégg mais ngeen bañ. nooy bañee loo bañee kule yëpp da ngay dem sooto foo koy jooyee nga yóbbu sooto Dakar bés bu ne nga jox chauffeur bi ak apprenti bi 3000 la ñu lekk par jour nga def frais Dakar Kaolack minimum 20000 25000 ngay jox chauffeur bi mu koy dërëm ñaar dërëm ba mu agsi kon ñun dañ ñoo dimbaliwul salaire ngi nii ñun ñu moom ko xorom si jóge fii ñun Saalum amuñ ci dara boo demee dëkk bu ne xanaa waroon nañu am kees goo xam ne ak ñi fi ne suñu chauffeur yi coxeur yi fi ne oto bu chargé salaire joxe téeméer wala 1000 francs ñu am kees mun ko dimbalee suñu chauffeur yi ak mag ñu retraité yi dañ ñoo dimbaliwul fii koo fi gis ñu la diwa moom oto bi ak oto bi barke Rasulullah boo amee sarax bu yeboo nga sarax ko la ëpp oto yoo xam ne ba koo jël da ngay seet fi nga koy jëlee ak heure yokk sa bopp coono yokk sa bopp ñu la bañ kon nag li ma bëgg mooy mesure yi ñu seet ko bala ñu cee jël wala bala ñu cee sori euh, vie euh, Guèye euh, dañuy des ba tey nag ak jafe-jafe yooyu aju ci kaw tali bi njiital cavalier national de la sécurité routière du Sénégal moom nag ànd ak dogal yooyu itam ma nga doon digal nguur gi maanaam daal ma doon defi recommandation eh, ci rek nees mën a def ak ban yoon la ñu a aw ngir dakkal l'accident yu bari ay yooyee eh, Cheikh Tidiane Sarr amal ci ab waxtaan eh, ci micro noir bi ay suñu wax démb mooy suñu gi naam ay effort am na jëm ci tabax tali yi mucc ayib waaye li des mooy tàggat nit ñi former leen xamal leen li nga xam ne moom la ko dalaa santaane comme loolu dañ cee tardé ñu ngi nguur gi mu jël jumtuwaay am solo def ko su ko defee nit ñi mën a xam lan la ko santaane kon nag li mu santaane bokk na ci lenn loo xam ne kenn ku ñu ci war a kaa fàtte mooy nañ mooy si ci kaw volant bi waaye bu nu sonnee nan noppalu waaye également nañ moytu ñu ooyee ne neex yàlla kenn ku ne ci ñun war na ko mën a maîtriser xam que ba ko jëfandikoo saa ne suy jëfandikoo tali bi ba mu leer waaye également ci tracé doodaan yi en peinture rouge tracé passage culté yi passage piéton yi waaye dimbale li nga xam ne mooy état bi ci yenn formation yi nga xam ne war na koo jagleel ñi nga xam ne ñoom ñooy jëfandikoo tali bi beneen maanaam wàññi koo nga xam ne a mu fexe góorgóorlu yi màggat yi yi nga xam ne mooy a a baax jëm ci wàllu horaire bi mooy kalan horaire yi lu yàkkamti yàkkamti foo jógee fi yegg fa quatre du soxla boo mënta yàkkamti mënoo koo dox ci guddi googu kon ñu ngi ñaan nguur gi dëgg dëgg neex yàlla ñu daal di arrêté horaire yi jàpp nañ ne kat dana wàññi bu baax a baax a baax li nga ne moo jëm ci wàllu accident yi. Euh, Cheikh Tidiane Sarr gannaaw nag l' accident boobee amoon ci si kilo euh, ba juróom itam ay bakkan yu a bare bari daal di cay faatu ñaari borom bus yi euh, ñoom ñoo ñee jàpp leen ne daal bu ñu renvoyé wul seenu ko dossier daañu taxaw nak ci kanamu àttekat yu tribunal grande instance bu Kaolack bi ca la nga xamee ne moom la ñu tuddee audience des flagrants délits bi ñu nax a amal àllarba fukki ak juróom ci weer ak noonee nga xamee ne ña nga leen di ah, toppee nag wàllu ah, mise en danger de la vie ah, d'autrui jàppale ni ki démb nag dañu leen a placé li nga xamee ne moo di mandat de dépôt bu ñu sukkandikoo ci ay xibaar yoo xam ne moom soxna Ndeye Fatou Cissé jébbal nañu ko wéyandi ba tey ci wàllu accident yi ci lu soxal nag l' accident boobee itam moom député bii di Pape Djibril Fall ma nga doon masaw jaal waaye tam nak seddoog askan wi li nga xamee ne moo di bi la mu ca xamle kon mooy ne lu ni mel du guléet waaye nag lu ñu mënoon a maytu la bu fekkonte ne moom état bi nag dina sàmmonteeg wàllu saytu gi naka noonu itam di jiital lii di waxtaan ay kàddoom fii ci Kaolack la ko jibalee euh, ci micro Cheikh Ababacar Dieng. lu mel nii du tey la fi am tey nag moom nombre bi dafa kawe waaye yàgg na fi am saa bu amee ñu génn yuuxu jooy plateau télé yëpp ñu koy wax man mii nga xamante ni analyser naa ba tay accident li ma analyser ci ay accident kenn xamul nu mu toll mais li gën a doy waar mooy ni ñuy frôler accident tous les jours xam nga bii day am xëyee suba ba ngoon jot Kaolack gii tey ñaata nit ñoo fiy faatu par jour ci ay accident kenn xamul nu mu toll sinon deux lay nekk gis nga fi camion bi li mu fi defoon taximan boobu mais bu émotion bi jàllee rek après ñu reprendre nos habitudes et l'État les autorités ne font absolument rien pour éradiquer li nga xamante ni moom mooy problème bi léegi nag ñun ñu jàpp ne mesures yi ñuy jël baax na c'est très bien mais dafa am ñaari mbir bu njëkk bi mooy mesures yi nañ ko waxtaanee ba d'accord ci comme ça ñool ñool diñ ciy dégg ni yëpp dootu ci am beneen bi mooy soo jëlee mesure tamit fokk nga saytu ko fekkente bëgg nga mbir sotti lu dul encadré nga ko saytu ko di ko natt boo nattee ba pare nga mën a joyanti et ñun dañuy gis ne malheureusement loolu mooy sunu faiblesse c'est l'évaluation le suivi évaluation moom mooy sunu faiblesse ak li nga xamante ni moom mooy la sanction yenn saa yi sax planification bi sax day def défaut on tombe dans la gestion de l'urgence et on fait les mêmes erreurs loolu moo tax bi gouvernement bi defee ñaari fan ak premier ministre ñu ñi ciy wax yëpp déedéet loolu moo tax ñun dañoo jàppoon ne sax dañoo waroon def comme bi bateau Le Joola amee le ministre des transports ci suba ga la tekki ndomba tànkam Youssouf Sakho loolu moo tax ñu jàpp ne ñun Mansour Faye ak ñi nga xamante ni ñoo nekk ci chaîne de responsabilité bi dañoo waroon a tekki seen ndomba tànk parce que mënoo régler problème ak ñi koy créer donc il fallait enlever leen daal di indi ñoo xamante management dëgg nga leen di laaj ñëw ñu fi pour politique li nga xamante ni moo ñu gën a sonal aujourd'hui mooy les choix politiques les choix politiques bu ñu jëlee le dessus sur direction yi dañuy jëli seen coordonnateur politique yi nommé leen laaj leen léegi un gain politique def ay recrutement politique on politise tout mënoo nekk yàpp nekk jën en même temps da nga tànn benn mooy sénégalais ñoo war a xam ne gouvernement du Sénégal dañoo politique ba fàtte liggéey et loolu moom moo tax jëy yi di continuer di am. Euh, Pape Djibril Fall gannaaw kàddu yooyu nag mu doon yëkkati ci wàllu euh, mesure yi àdduna itam rek ci Kaolack ak i jafe-jafeem bi waaye itam daal di waxaale ci dundu gu cher geeg yokkute ga njëg yi yile mu def ci ab njàngat lu ay yaatu yaatu ba tey ci micro Cheikh Ababacar Dieng xawoon nañoo dee de waaye dina gën a yokk de xam nga keroog dégg naa benn waaye nee na man daf maa waxal nee na woyefal bi jeex na ak gaz bi jeex na tànk rayu fi nit duñ ko bàyyi mais woyefal bi jeex na ak gaz bi jeex na mu ngi ñuy bëgg a rey courant bi cher na mais carburant bu chéré sa mbokk jegeen yi problème bi ñuy gën a am mooy dañuy xëy rek mburu mi yokk tous les produits dérivés yi nga xamante ni carburant moom mooy base bi dafa yokk kon ñun askanu Sénégal bu ñu xam ne moom moo ñu dese mais nguur moo ko yenn woon lu boo ko yénnee ko ci kaw askan wi moo ñu jaaxal waaw léegi su ko yénnee rek mooy 2024 soriwul ñu sanctionné ko il faut les sanctionner les politiciens parce que li nga xamante ni moom mooy triptyque bi am mooy séduction élection trahison loolu la parce que xam nga bu élection doon ñëw fi ne nii sax nee yokk nañ ko waaye pour man sax dañuy tuufkaani li ñu bëgg mooy comme ñoo ngi dem ci dee wàññiwaat nañ ko votel leen ñu yelloon nañ ko te dëkk bi mën naa neex dëkk bi nit ñi waroon nañoo mën dund ci tawfeex jafe-jafe bi yëpp mooy dafa am ñu aaki moo mbiri téye te loolu la rapport de la cour des comptes bi wane te loolu mënatul woy sëñ bi les gens sont fatigués Kaolack gi ngeen dëkk gis ngeen ni mu méttee seen problème mu marché waxu leen ci il faut que ngeen gën a interpeller l'état du Sénégal parce que dafa am ñu ñu dénk la réhabilitation des marchés bi c'est indigne de Kaolack Kaolack dëkk bu mag la am une grande vocation bu mag vocation commerciale ci wàllu religieuse vocation yu bari la am tubaab bi sax dafa mel ni ñu am responsabilité ni Kaolack moo gën nit ñu ñuul ñi biñ ko assigné parce que ñoom amoon nañ ci gis-gis xamoon nañ ne lii lii la war a yenu mais dëkk bu mel nii nekk Carrefour à partir de Kaolack mënoon nga desservir Sénégal ci côté yëpp mais xoolal tey ji ni mu mel trop de politiciens c'est ça que ça crée li sëñ Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum di wax nee moom li ko jaaxal yëpp mooy léegi politiciens yi dañoo bëgg a commencer ëpp électeurs yi waaye Kaolack nag politiciens yi ñoo ëpp électeurs yi moo tax problème yi yëpp ñu daal di euh, wéy kon daal di wax rek ci beneen poñ boo xamee ne itam ni mi ngi aju ci wàllu euh, njëg yi ak ñaar fukki dërëm yi nga xamee ne moom la ñu yokk nag ci njëgu euh, carburant bi loolee nag ba jamono ji ma ngay des rek di doon lu diis ci kaw a sëfër si moo xam ñi nga xamee ne ña ngay dawal Jakarta wa ilaa itam ñiy dawal ndaamaar yi la ñu xamle kon jamono ji mooy ne mbir mi métti na ba sax ña ngay yuuxu wàllu Alioune Badara Diop ginnaaw njëg yi nga xamante ni yokk na ci essence beeg gasoil bi li ni mel nag jur na ab njàqare jëmale ko ci dawalkatu taxi yi ak jakarta yi ñu ngi fii ci région bu Kaolack ndàngaan Abdou Karim Lo moom mi ab chauffeur la nekk ci garage del teew ci doon bu Kaolack Ndangaan. ni ñu koy dundee métti na trop parce que dañuy liggéey ba ngoon jot bu ñu doon am dix mille bu ñu am dix mille huit mille la ñuy am wala sept mille ndax bu ñu jógee jël cent franc yokk ko ci essence gasoil métti na trop ndax cinq franc wala cinquante franc méttiwul waaye cent franc ah doy na waar trop parce que dañuy war dañu liggéey dañuy wër di liggéeyante rek ci dëkk bi te liggéey bi neexatul noonu nu mu demee woon. ñu ngi ko fekk ak otom tak ci zone noire ci station bi muy duy gasoil moom mi mu ngi ñaxtu bu baax a baax yokkute gasoil bi ak essence bi la Aliou Diop lay wuyoo. waaw xoolal damaa xëy xool li ma lakk neuf mille cinq cent soixante ci xëy mooy da ngay liggéey bu bëgg a doo am dara. parce que moom bu ko yokkut boo mooy duñ ci génn quoi. Ah eh, ñàkk dawal sax moom moo gën. xanaa ñu jéem a seet ñu yokkee paas bi rek pour ñu mën a am dara parce que kuy liggéey moom ngir dara tax waaye jóg 4 heures du matin ba léegi lakk 9000 lii du amuñ dara bañ a toog lii di mi leen mu ngi àddu ci wàllum am li nga xamante ni wàllum compréhension bi ne lii di essence bi dafa yokk. ah métti rek mooy loolu yaa am gën a xam affaire bi moom métti na ci borom vélo yi paas bi moom mooy loolu gars yi boole nag bi yokk na mooy loolu loolu duñ la gëm gars yi duñ fay prix quoi duñ fay métti na suñu trop dañuy perte kañ parce boo liggéey boo wàcc boo jëndee essence mooy loolu doo am loo denc xanaa ñu dimbaluñu rek wàññi affaire bi ak lu ci munta am dawalkatu jakartaay ak oto yi nekk fii ci région bu Kaolack ndangaan ñoom ñi léey njàqare dong la ñu amee ak tiitàng yi ci wàllum yokkute essence bi naam sax jamono moom dafa métti lool wante teewul ni ñu ngi góorgóorlu rax ci dolli di ñaax état bu Sénégal mu jël ay ndogal wàññiwaat li nga xamante ni mooy essence beeg gasoil bi ngir kat ñu mën a am lu ñu mën a suturloo. Alioune Badara Diop ñu bàyyi yokkute carburant boobee daal di wax itam yokkute gi ñu nemmeeku jamono ji ci courant beeg li ko waral njëg léegi fi mu jógee ko ak fi mu jëm kër gi di Senelec ci wàllu doxalin pexe yi nga xamee ne jamono ji nga koy lal ngir a nërmeelu euh, fileeg nag réew mii di mën a moom boppam ci wàllu pétrole ak gaz lu ni mel nag ca indi ay leeral mooy directeur général ba ma euh, Mademba bi tey ci micro Arona Niang Senelec day jënd di jaay senelek lu muy jënd mooy combustible bi nga xam ne moom lay dugal ci machine am togg ko jaay courant léegi nag tant que njëg bu muy jëndee wàññeekuwul li muy jaayee du mën a wàññeeku te bu ngeen xoolee li xew aujourd'hui Senelec mooy à part ñaq bu nga xam ne moom la travailleurs yi di def pour defar courant leneen li si des yëpp bitim réew lañ koy jëlee muy combustible muy machine yi muy pièces de rechange te loolu nag amaguñ si benn maîtrise boo xam ne mun nañu permettre ñu taxaw ba ne lii xam nañ ne du weesu fii donc suñ njëg du mun a jégg fële donc comme nu ko membre waxee fii ak pétrole beeg gaz bi di yegg si période boobu dañuy dépendre encore ci bitim gis ngeen ko war nañ ko rappeler 2016 2017 état versé wul compensation la compensation était nulle pendant ces deux années là loolu lu ko waral si bu ngeen seetloo mooy jamono boobu si lañ amoon prix combustible yi nga xam ne si leen gën a wàcc. donc 2016 2017 l'État versé wul compensation et donc loolu nag condition yooyu ñu amoon bés bu taxawaatee ñu delluwaat compensation bi ñu annulé ko wala aussi fii ak suñu pétrole ak suñu gaz bi nga xam ne Sénégal lay jógee yegg si dinañu permettre ndaxte comme nu ma ko waxee depuis 2014 Sénélec pare na bu ngeen xoolee courbe bi depuis 2014 si la coupure yi wàññee donc am nañ machine yu nga xam ne taxaw nañ pour beese léegi nag lu ci des te luy déterminer mbir mi mooy le combustible le bi nag malheureusement maîtriser wuñ prix baril bi maîtriser wuñ fluctuation dollar bi moo tax fii ak suñu gaz ak suñu pétrole bi di ñëw dañuy nangu rek dawal solidarité jàppalante pour que aujourd'hui ñu mën a protéger ñëpp. mu nekkoon ay kàddu yu Pape Mademba Bitèye directeur général bu Sénélec ñu daal di wax nag ci wàllu suqalikoog wàllu ay yokkute ma junjoon leen ko nag ci bopp xibaar yi municipalité bu Kaolack bi nag dafa daal di jumelé ak ab dëkk boo xamee ne ma nga ci ca réewum Turquie di wuyoo ci AMSA lépp nag mi ngi aju ci ab convention boo xamee ne dañu ko daal di xaatim jaarale ko ci ambassadeur u réewum Turquie boobee njëriñu lëngoo boobee nag moom meeru Kaolack bii di Serigne Mboup àdduna ci ci micro Cheikh Ababacar Dieng. tey ambassadeur Turquie daf fi ñëwoon ci benn inauguration machine à glace boo xam ne ni ñoom dañ ko jàppale woon mairie de Kaolack ci marché de poisson depuis 2021 mais biñ ñëwee yàlla def ñun ñu àggale ko nekkoon ci ay détails ay courant yooyu defar nañ ko ba tey Kaolack glace bi mu daan wuti Fatick amatul léegi fii lañ koy def en mu nekkaat beneen kii boo xam ne ni Kaolack day signé benn jumelage premier jumelage bu ma signé entre Kaolack ak dëkk Amassa mu nekk dëkk boo xam ne nii moo Kaolack ñoo tolloo population ñaareel ba mooy dañuy yëngatu bu baax ci wàllu peche ak wàllu agriculture dañu am programme comme ni niñ ko doon wax ndoxu taw bi au lieu que ñu di ko pousse mu dem ci géej gi ñu mu dem ci ay bassin ñu ñu man ci def pisciculture ci loolu sax am nañ benn expert boo xam ne nii mi ngi fi Mamina kamara nekkoon directeur Prodac dana def tour pour proposer ñu dara en tout cas daal loolu moo doon signature bi. fekk commune Kaolack mu ngi am ay xarit. waaw na ay xarit toujours te dana di am ndax nëgë ni démb heure bi maa ngi Turquie kon bu yàlla defee tey may signé ak ambassadeur bi Turquie waxtaan nañ ci lu bari ah ci niñ mën àndee ci foire bi bi ma demee Turquie waxtaan nañ ci entreprise Turquie niñ mën a ñëwee investir fii ci wàllu partenariat wala privé privé wala public yooyu yëpp waxtaan nañ ci bi ma demee Turquie waaw xam nga mbay moom jàppan na Sénégal mën nañ ko mën nañ ko li des rek mooy am jiw bu baax leneen li ki des mooy man a transformer suñ produit yi macha allah sunu jigéen ñi am nañ ci ay xalaat yu baax li ci des mooy régler problème emballage bi régler problème mu distribution yi et loolu année bi mairie bi def na ci daanaka lu mat 300 millions yoo xam ne nii buñ ko taxawalee yaakaar naa Kaolack du jàmbatati emballage ak jàmbat fuñ ko jaayee. yéen a ngi déglu xibaar yi 90 point ngeen di uh, wéy uh, ba tey nag di fi taataani ay xibaar yu uh, wér te wóor ab nag moo daal di am rek ca Mangoulé ab dëkk la ma nga ca Tengori foofee nag ab muru salle de classe boo xamee ne banque la woon moo daal di daanu nag ca kaw imaamu dëkk ba gannaaw gi itam mu daal di cay ñàkkee bakkanam loole nag mi ngi am ci boo xamee ne dañu doon amal ay travaux de démolition ci seen village boobee Alpha Diédiou moom mooy adjoint principal ba mi ngi ci. ci jokkoo bi ci téléphone ak Mouhamed Sagna. dañu amoon benn projet état la bu ñu bëggoon tabaxal si Sadaga. léegi banques yi les en tout ça dimanche en banque waaw yooyu lañ doon démolir léegi on a mobilisé les parents le dimanche mais jotuñ pare quoi taw lañ génne léegi on a donné rendez-vous tey pour ñu ñu julli quoi après y la femme là bu ñu joxoon pour mu toggal ñu moom tamit dafa yónnee benn xale pour nañu ñu ne noonu bàyyi ñu daane miir boobu mooy ñu l'infection dañuy julli balaa ñuy salaam rek ñu def yu wi daañu ne yooyu ñu koy jëmas kii quoi voilà bañ salaamee ñu kii nii voilà fekk ndeke affaire noonu la demee mais dafa gaa ñu tukkee ñu ne moom moo doon si suuf quoi parce que dafa am nu mu koy kiyee pour mu yem ba daaneel quoi parce que ñu pousse ko de l'autre côté léegi comme dafa xaw a dëgër léegi moom muy jéem a dóor nii ci kas nii pour affaire bi mën a gaaw a daanu quoi ndeke moom nu muy dóoree nii ci ak nit baa ngi doon ñëw si otoom na alors que moom si beneen côté bi lañ kiyam pour mu daanu beneen côté léegi donc noonu la fa demee léegi gars yi ba ñu sentir ni nit baa ngi déplacé ñoo bëri ñu yuux ñeen j'étais six à l'intérieur quoi ak moom voilà ñu yuuxu ñu koy jéem a kii pour mu kii ñeneen ñi ba ñu kii rek dañuy yóbbu rek ñëpp daw jël léegi moom nga a moo fa daal di euh, daanu ñu yenn yóbbu l'hôpital mu ñàkk bakk bakkanam waaye nag ba jamono ji xamee sul rek ana lan moo ko faat nettali gi ak Mamadou Moustapha Mbaye njàq rek tiis ñeel ñi nga xam ne ñoo nekk ci marché kaas bu Touba rawati commerçant yi li leen jural njàqare googu weesuul benn soxna bu nga xam ne ñu ngi njort ne am na juróom benn fukki at mu jékki-jékki rek daal di daanu te bi muy daanu ñu ngi wax ne mi ngi yore benn siwo waaye yore xaalis bu toll ci ñeenti téeméer ak benn këyit bu nga xam ne ñu ngi bind ci kaw benn numéro téléphone daanu bi nga xamee ni askan wi ñëw nañu gis nañu ne soxna si amoon na jafe-jafe loolu ngir noyyi ñu bari sax doon njott ne ci saasi la ñàkk bakkanam loole bi mu xewee waa sapeur pompier ñëw jël si ko yóbbu ko ci centre de santé bi nga xam ne moo nekkee ci Touba 28 foofee nag bi mu fa yegsee ñi nga xam ne ñooy saytu wér gi yaramam gis nañu ne ñàkk na bakkanam ba léegi kenn mënagul xam kan la waaye nag ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk foofee ca sante de santé bi jël nañu kayit ba xool numéro téléphone ba ca ne ñëwee xool na soxna si nee na xamu ko tey ëllëg waxi nopp Mamadou Moustapha Mbaye Touba Alfayda euh, euh, euh, FM. ci lu soxal nag xew-xew diine bii di màggalu ko Poroxaan édition 2023 bi jamono ji nag kilifa diine ya kilifa aada yi ñu ngi ci waajtaay ci kaw loolu sax amal nañ ci ab ndaje ngir nag daal di waxtaane wàllu organisation ba bu dee nag wàllum kër docteur l'hôpital régional bu Kaolack bi ñoom nag fësal nañu fa dispositif sanitaire bi nga xamee ne namoon nañu koy teg Khadijatou Sarr Kébé directrice ba lañ cay teew looy kàddoom. il y aura le premier centre de santé de ci yoon bi mën nga ñu donc euh, dañuy organiser wu autour du SAU c'est-à-dire le service d'accueil des urgences moom mooy réceptacle yi nga xam ne yëpp am nañ tolof tolof jógee si maanaam poroxaan bi wala ñuy dem wala médecin yeeg chirurgien yeeg ñooñu ñëpp dañ leen di mettre sous traitement c'est-à-dire ñu génn kaw la ñu sori kaw la pour que li ñu bëgg mooy ñu bañ a yóbbu benn cas bu dem Dakar de référence nga xam ne foowee bu am ñu dañ ko mën a réglé fii si kaw donc loolu essayé dafa ci taxaw armée aussi dafa ñu ciy jàppale parce que dañuy prévoir yokk les d'extension dañuy prévoir bu teg ñaan ko yàlla bu jëyee amee bu mag a mag dañuy am des zones d'extension yoo xam ne mu ngi ci jëm ci ndax mooy angaar yi nga xam ne accompagnant yi te dañuy toog angaar yooyu dañ koy vider pour événement bi jubsee dañuy vider angaar yooyu pour que bu fitna amee mu bañ noppee loolu trois bu dëkk bi ci jàppale amee aussi dëkk bi ci jàppale en terme de brancard par rapport aussi aux médicaments nous recevons une dotation de 1 million de médicaments mais loolu yëpp dañ koy mokkal defar ay kit yoo xam ni bu ñu soxlaa opéré bu ñu fa nekk di xaar prise en charge bi moom par rapport aux accidents bi ñu war a dugg ko opéré sëy naa mais ci ñetti fan nag nga yem te du tere hôpital aussi day continuer di doxal mission bi nga xam ne ñeneen ñu bokk ci màggal bi te bëgg a ñëw hôpital bu la faj si dañuy faj te depuis ñetti at nag li ñu gën a dalal suñu xel mooy sànni ñu ci biir hôpital MCA wax na ko sànni donc sànni ci biir hôpital bi nga nekk donc bu ñu amee loo xam ne dafa jéggi dayoo wala dañ ko war a yóbbu feneen sànni moo koy conditionné yóbbu ko dinañu organiser hôpital yi balaa yàgg une xabaar yi bitim réew yegg si euh, nañu ci ñaareelu xaaju euh, xibaar yi euh, biti réew Alioune Badara Diop ana foo koy dooree. jërëjëf Ngoné Ndiaye ren xibaar bitim réew dañ koy dooree bu yi wax ci bilan bi nga xamante jot nañ ko nemmeeku ginnaaw cong yi nga xamante nemmeeku nañ ko ci fukki fan. ci weeru janvier bi ñu génn li ni mel lekk tax na kuréel gi nga xamante ni moo yor wàllum euh, kaaraange gi foofu ci réew bu Mali def benn communiqué yi ci bilan yi nga xamante ni jot nañ faatu ci cong yi nga xamante ni nemmeeku nañ ko foofu ci réew bu Mali fukk ak ñeenti soldats yoo xamante ni jot nañ ñàkk seen bakk wante luy toll fanweer ak benn terroriste yoo xamante jot nañ leen teg loxo foofu ci réew bu Mali yi bitim réew ñu dem bëre bu Nigéria boo xam ne def ko benn pasteur bi nga ni mu ngi doon def naka sudu noonu réew bu Nigéria ginnaaw bi ko jotee nemmeeku mu jàpp ay doomu aadama yoo xam ne daf leen jot a kidnappé yi li ni mel nag way takk der yi ñoo ko jot a nemmeeku foofu ca réew bu Nigéria jëf yi ni mel ñu ngi ko nemmeeku foofu ca centre ville bu réew bu Nigéria li la waral nag ñoom ñi nga xam ne ñooy wàllum kaaraange foofu ca réew bu Nigéria yokk nañu lim bi bu takk lool ngir kat saytu kaaraange askan bi nga xamante ni ñoo yeew foofu ca réew bu Nigéria xabaar yi bitim réew dem ba réew wax ci li tollook fukk ak juróom-benn terroriste yoo xam ne jot nañu leen teg mu ngi am ca gox bii di Maradi ginnaaw na ci ab doxantu bu yaatu boo xamante ni way takk der yi nekk foofu ca réew bu Niger def nañ ko ba jot teg loxo luy toll fukk ak benn terroriste yoo xamante ni seen mébét bokkoon na ci def ñaawte foofu ca réew bu Niger naam sax dañuy faral di nemmeeku ay cong ci bët gànnaar bi yoo xamante ni way terroriste dañ ko fay faral di def waaye jamono ñu toll nag mën nañu wax ne kaaraange gi moom foo ko natt weesu na ko foofu ca réew bu Niger. xabaar yi bitim réew. xibaari bitim réew dañ koy jeexal réew bu RDC. RDC Congo wax ci ki nga xamante ni moo nekkoon njiitu réew bu Kenya di Uhuru Kenyatta moom mi la amaloon ab ndaje bu yaatoo yaatu ak benn délégation boo xamante ni ñoo bokk ci mouvement rebelle bi di M23 a fas li ni mel na bokk na ci indiwaa jàmm ci réew bu RDC Congo ci fàttali na boobu la ñu ko amaloon ci gox bii di Mombasa ginnaaw nag ci ab bu yaatoo boo xamante ni amal na ko ki nga xamante moo jiite kuréel rebelle bi M23 moom Uhuru Kenyatta moom mi moo fi nekkoon njiitu réew bu réew bu Kenya am na ci ab xel bu dal ne jàmm ji moom daana dellusiwaat delluwaat foofu ci réew RDC Congo ci diggante yi way takk der yi ak mouvement rebelle bii di M23. xabaar yi bitim réew. ci xibaar bitim yi cant ak ngërëm la. baak euh, boobee kon euh, tàggat yaram gi euh, lay yëgle Serigne Moussa Kane maa ngi lay nuyu. Ngone Ndiaye maa ngi lay fay te ñuy bokk auditeurs yi. di la ñaanal jàmm di ko sàkku ci ñoom xibaar xibaaru tàggat yaram bi dañu koy doore ak football amateur fukkeelu bëccëg bi nag suba toglu bu jas mooy laa lekk Kazel bu Bignona ca Tamba lay doon AS Kolda dina lekk Jeanne d'Arc bu Dakar bu ñeenti waxtu jotee avenir bu Dakar dina lekk NGB ca stade municipal ba ca Mbaaw Renaissance dina lekk Yego Olympique bu Ziguinchor dina lekk Kayor Fouta ca Aline Sitoé Diatta Assur dina lekk Université bu Saint-Louis ca Mawade Wade Étoile Lusitana dina lekk Stade Thiaroye EJ Fatick dina lekk ETEX ca Massène Sène daal di waxtaanee CHAN 2023 bu benn waxtu jotee tey nag Éthiopie mooy laaleeg Mozambique RD Congo di laaleeg Ouganda bu ñeenti waxtu jotee Côte d'Ivoire di laaleeg Sénégal bu juróom-ñaari waxtu jotee. ñu dem ci rajo Europe fukkeelu bëccëg bekk juróom-ñeent Ligue 1 Lens mooy laa lekk Auxerre bu ñeenti waxtu jotee Marseille di laa lekk Lorient bu juróom-benn waxtu jotee Lyon di laa lekk Strasbourg bu juróom-ñetti waxtu jotee ñaar fukkeelu bëccëg bi Premier ci Angleterre derby tey mi ngi war a dox ci diggante Manchester United ak Manchester City mooy choc bi Brighton di laa lekk Liverpool bu ñetti waxtu jotee Everton di laa lekk Southampton Wolverhampton ba ñaar Liga Espagnol Valladolid mooy laleeg Rayo Vallecano bu benn waxtu jotee Girona di laleeg Sevilla FC bu ñetti waxtu jotee ba teg fukki simili ak juróom Osasuna di laleeg Mallorca bu juróomi waxtu jotee ba teg fanweeri simili Real Sociedad di laleeg Atlético Bilbao bu juróom-ñetti waxtu jotee fukkeelu bëccëg bekk juróom-ñetti Calcio italien Cremonese di laleeg Monza bu ñaari waxtu jotee Lecce di laleeg Milan AC bu juróomi waxtu jotee Inter Milan di laleeg Hellas Verona bu juróom-ñetti waxtu jotee ñu waxtaanee àndu bool ginnaaw bi nga xamante ni dañu ko reporté woon nag saison bu yees jëm ci championnat national ci wàllum góor ñi ak jigéen ñi fii ci Sénégal nag fédération sénégalaise bi wàllum àndu bool daal di nay jël ab ndogal ne semaine gi ñu dëgmal ci la ñuy door li nga xamante ni moom mooy saison 2022 2023 ñu daal di waxtaanee làmb suba nag choc bi mi ngi war a am ci diggante Zarko ak Ada fas te nga xamante ni structure bi di Pape Abdou Fall production moo ko taxawal ñu daanaka ñaari mbër yi ci seen juróomi combat yu mujj diggante atum 2021 ak 2022 dañu cee jëlee ay ndam nag combat bi mi ngi amee suba ca arène nationale jiu-jitsu brésilien di championnat Europe yoo xamante ni dinañ ko amal ca Paris ñaar fukki fan ñett ba ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weeru janvier gi ñu nekk délégation sénégalaise bi nag am na juróom-ñetti athlète bokk na ci ñaari jigéen mu ngoog Ngoné Ndiaye gannaaw ba la ñaanalee kenn daa yu jàmm li ma gënoon a xibaaru tàggat yaram yi jaa ngeen li ci yéene kaay yi kaay yi L'Obs, Le Soleil, li ci euh, yéene kaay yeeg El Hadji euh, Seydina Oumar Cissé ah. alaan bikum nguurug Sénégal fa ñoo daw fa ñoo deltu ginnaaw ca dogal ya ñu jëloon jëm ci kaw tali bi le quotidien yéen kaay ñu ko xamal xam nga bi accident ba amee ca six kilo Kaffrine état bi fa jël dogal yu bari ñaar fukk ak ñaar mu am yoo xam ne fa koo tàmbalee jëfee chauffeur si yooxu di leen napp naan fa ñuy dem geraw rek état ba daw bokk na ci yi ñu deltu ginnaaw porte bagage yi nga xam ne fañ koo aaye woon ne bokkul ci biis bokkul ci oto léegi fañ caa deltu ginnaaw l'observateur ne état bi kay fa daw wëqeet deltu ginnaaw ndax ragal chauffeur si moo tax fa ñuy mu toll porox ndoll buñ mën a jaar balay génn lii yéene kaay ne monte Mansour Faye fay xiiral aka nappaate ne dogal yi fañ koy jëfee chauffeur si ne leen ñun fañ leen di xaar rek xam nga lu ñu nar a def ñun chauffeur si geraw oto dootu daw Sénégal turbine yéene kaay ne fañ leen a tere tamit chauffeur si ne oto yi dootu daw guddi 23 heures ba 5 heures du ginnaaw daan yooyu nag woy tukki ñoom it fa nar a saf si ñoom de yow seetal fa xam benn bis mu yoo xam ne tamit fañ leen a arrêté ca diwaanu Koungheul bi fañ koy tere porte bagage fañ koy tere l'observateur ne ñaari bis ya defoon accident nag ca Kaffrine seeni borom tëj nañ leen kaso fukki fan ak juróom-ñett nag ci weeru janvier wii ci lañ leen di atte atte nag dëgg-dëgg mënta ñàkk diggante nguurug Sénégal ak chauffeur si yow seetal dogal yi nguur gi jël chauffeur si fa ñoo wax na d'accorduñ ci ba ñoom sax fa fas yéene amal réunion jël dogal ñoom chauffeur si te ci geraw lañ jëm ñu ne dee tawaayati essence fa yokk a yokk paas yi tax wal fajir yéene kaay mel ni ku naan état bi ndax chauffeur si fañ leen a sëkkatal leer laneen lu leer ba yegg ca naan ñi ja mooy ne marché yi ci Sénégal ñaaral fay lakk lu bëri li tax nag muy lakk si du quotidien na faa leen koy wax yow seetal marché Sénégal yu bëri installation ya ci ak maa tay lañ ko defee lu neex waay def su lakk amee li nga xam ne moo koy fay amul ci marché yi ñu ne déete waayeti seen courant ya fañ koo ñab-ñabal place bi mooy xëccal kële ñu jël fil bële yokk ko ca bële di ko lémbalante ba tax yéen a kaay bi na nguurug Sénégal gi bëgg a ñoŋal moderniser marché yi <laughs> na ko war na du yomb de leer laneen lu leer ba yegg ca nañ ja mooy ne ñetteelu mandat bu njiitëram Macky Sall ñi seen xam-xam màcc ci wàllu yoon constitutionnaliste yi fañ cee waroo gis-gis bu ñii ne Macky am na droit def ñetteelu mandat ñette des na amul droit bés bi yéen a kaay ñi ko xamal kadeer booy na leen hëy li ngeen wax noonu demeewut noonu fii amul benn constitutionnaliste ku xam-xam màcc ci wàllu yoon bu wax na Macky am na sañ-sañ laaj ñetteelu mandat ci wàllu yoon kenn waxut ko ci ñun ki fi wax nag loo xamante ne danger la lu garaaw mooy Ismaïla Madior Fall te moom waxut ko Macky de déedéet fa wax na wàllu politique su ko defee am na droit laaj ñetteelu mandat xam nga ne loolu waxu caaxaan caaxaan la ak tappale yoon nekk fi nga naan politique kon politique daal moo ëpp doole yoon ba tax Kader Boy Ismaïla Madior Fall mi ku danger la ci suñu bànqaasi réew mi nguur nag jarul lii professeur El Hadji Mbodj ne Ismaïla Madior Fall kay wax dëgg yàlla xam doy na de te man yàgg naa ko wax ku xam-xam màcc ci wàllu yoon su demee ba dugg ci politique ñaareel du baax ci moom de ndax intérêt politique nag fay laaj ñetteelu mandat ma ko waxee ca vox populi les si ku yéen kaay ne Macky kay ku xool ni muy doxalee xam ne fa bëgg ñetteelu mandat nañ waxante dëgg rek xoolal ma nga ne la fa dalal audience coalition sàmm sunu réew na leen faa bëgg ngeen gën a waaj 2024 ñaax leen loolu kay fa leer keneen kuy leeral yoonam ngir dem samp ndëndëm mooy Khalifa Sall GP yéen kaay ne xaaf fay amal tournée dugg ci biir réew mi indépendant yéen kaay nag fa bëgg a jaay sénégalais yi programme ne buñ ko falee président bu Sénégal fay wàññi ministre yu su boobaa ak fukki ministre ak juróom ak juróom-ñeenti secrétaire d'état diiwaanu Thiès nee faa koy def capital ci wàllu administrative nee na faa koy def mu nekk raison maanaam diiwaan info yi ne kaay ne kuréel gi ñuy wax CDP fa ñoo taxaw ngir dakkal politiciens li ñuy jëfandikoo ay données personnelles ci biir politique ngir yàqal ci nit loolu baaxut Vox Populi moom di ñu xamal ne Amy Ndiaye ñii bi député ba génn na de nee na lam def nag na ba léegi ne fa ngaa ëmb moo tax sa dossier bi garaaw bañ jàpp ana sa ëmb bi nga doon wax mu ne leen loolu sama vie privée la du ci wax maa bañ tontuuma la mu wax nag mooy tontu na Barthélemy Diaz ci kàddu yi mu yëkkati woon teg ca kawam direct news moom di ñu xamal ne Babacar Justin Ndiaye fa doon amal jàngat ci discours bi Ousmane Sonko yëkkati ca France 24 ak RFI le quotidien yéen a kaay na ko voilà Ousmane Sonko moomu nag am na ay risques yu koy xaar diggante mook Mame Mbaye Niang ba moytu fañ ko nar tëj bi nga xam ne e ko jox bu ñu demee moom Guy Marius mooy fa dem seeti ji Pape Alé Niang ginnaaw bu mu génnee kaso mook na teli yàmb fa ñoo demoon mastaw ji ko gërëm ko ci taxawaayam bu rafet ci réew mi libération moom di ñu xamal ne fa xam ab bato boo xam ne fa lakk tàkk jëppéet ca port bu ndakaaru ba benn doomu aadama ñàkk ca bakkanam benn waay bu xam ñeent fukk ak juróom ñent la boobu la sant yéene kaa bi ne la la taxal bato ba nag mooy fa am liggéey boo xam ne ay menuisier métallique fañ ko doon def ca biir fa la xoyantaanee tàkkee yàqu-yàqu yu bëri am na fa jikko yu yu bëri yi nag Sénégal bët bu gën a bëri fay gën a takkarnaase te ñaareel boo ci dégg fag naan lii kii nan kii naka la mën a lii xaaral faa leen di wax wax benn waay boo xam ne fay jaay këriñ benn élève bu jigéen parental xale bu jigéen bu am fukki at fukki at laa wax su jaaree sa buntu fa mu jaayee këriñ rek mu nax ko dugal ko ca biir pare di ko tëddee ba fañ kaa mujj jàpp yëf yaa nga amee ca géejewaay l'observateur moo ñu ko xamal <laughs> waa ma ne fa xam góor ñoo xam ne xeebuñ dara dara dara séexlu wuñ dara dara fa mel ni rek fa ñoo feebar am na loo xam ne soo ko mënee sa fa nga kaa war a rus xale bu jigéen bu am fukki at kooku fa faj dara lii ci euh, yéeni kaay yi euh, shukran El Hadji euh, ponk boobee sax nag mooy jeexal xibaar yi jaajëfal nañu leen bu baax a baax yéen di fare ci wàllu déglu gi jaajëfal El Hadj Ibrahima Gaye ci xarale gi euh, Mouhamadou Khalili euh, ci partie euh, digitale bi waaye du ñu fàtte waa rédaction ak waa production ci njàppandal gi woy leen di ànd ak sunu programme ñaanal nañu leen mucc ak muccule jàmmi biir ak biti tawféex ak taysir jàngeen jëfati Le journal